suñu ganu euh, li nga xamante ne moom mooy la voix soir tey ñu nekk ci aljuma euh, dekk dernier numéro semaine bi euh, ki mu doon moom mooy Mamadou Moustapha Diagne nekk directeur formation communication bu ministère éducation nationale waaye itam jiite coalition boobee nga xamante ne ni Mouhamed fa la ñuy dugg ndax tey mm-hmm. mesdames messieurs tardewu leen dara bu ngeen ñu rejoindre yéen a ngi ci Equivox TV votre télévision à portée de main ngeen mën ñu nag suivre suñu émission en direct ci réseaux sociaux yëpp fu ngeen dem rek su ngeen defee politique Mouhamed euh, gis nañu calendrier électoral bi dialogue mm-hmm. beek jëm ci wàllu politique yi di soxal nag wàllu kujje geek ñi fare ci nguur gi mm-hmm. alors euh, foofu laa lay bàyyi rek nga dalal rek mm-hmm. d'accord alors euh, ba tey ci wàllu politique bi gis nañu moo xam li soxal calendrier électoral bi ñi di front de résistance nationale def nañ seen point de presse semaine bi wax ni kii dañu bëggoon ñoom élection locale yi ñu amal ko ci bu ko defee législative yi ñu amal ko 2022 et que progressivement euh, présidentielle mun a am en 2024 maanaam ñu mun a respecter li nga xam ne moo di calendrier électoral bi fi coow lu tollu fan yi fan la su lan mooy lan mooy lan mooy euh, sabab bi li ñu waroon njëkk a def opposition bi mooy démissionner seen post conseil ak maire ak président conseil départemental c'est-à-dire non il faut être conséquent. ñoom euh, opposition bi booy xeex benn mbir yow nee nga il faut élection yi mu am 2021 nee nga affaire bi ce n'est plus légal ce n'est plus légitime mais da ngay ay actes. Mm-hmm. ñoom ñu ngi ci troisième mandat ñu nekk maire ak conseil. ñu ci te nekk ci opposition bi te nekk ci wuñ de tant que wootuñu élection yi duñu te duñu bàyyi mm-hmm. il faut être sérieux te lii ñu ngi koy wax. li ñi koy wax nii c'est parce que avènement yi fi amoon moo tax ñu koy wax ah. Hmm. mais avant wax dëgg ñu ngi ci dialogue national ba toog di waxtaan lan moo fi changé mbir boo koy xeex te li ça les Sénégalais hmm. boo koy xeex c'est-à-dire da nga da ci da nga ci da ci da nga ci sérieux on n'a pas hmm. moo toog sa mandat jeex pendant depuis deux mille dix-neuf nga toog on est en mille vingt et nga naan élection nañ ko organiser 2021 bu bëggoon ñu organiser kon 2019 ngay démissionné ñu 2019 nañ ko organiser. kon opposition bi dañuy tappale. mooy tey ay tappale la et puis entre décembre 2021 ak février 2022 où la différence ça il faut arrêter gis nga bu ñu loolu c'est pas les priorités te Sénégal jàpp dëgg-dëgg li ñu dugal nii ci démocratie mooy daf ñuy appauvrir ndax boo xoolee 2012 wat nañ ñaari yoon. 2014 ñu woote benn yoon. 2016 2016 ñu wote. 2017 ñu wote. 2019 ñu wote. six élections en en sept ans. looloo tax nee na ñu joxoñ leen baaraam de. dafa naa rek six élections en sept kooku ban réew mu mun na doon moo ko attan. waaw li mu laaj. ah loolu ci nguuru président Macky Sall la xewee. non en fait déedéet ñoo ko bëgg noonu. à ah, qui non kii ak ñi fi jiitoog ñëpp rek état beeg opposition bi parce que man dama xamul lan moo fi jar tout ces élections là et quest que en quoi sa ça va changer le pays en quoi. mais nee nañu da ngeen am problème mu respect calendrier. républicain non xoolal loolu moom bu ko wax Abdoulaye Wade dàq na fi ba tey Abdou Diouf dàq na fi élection ba tey. il faut pas qu'on a commencé en 2012. ndaxte da ngeen bëgg a randal leen tamit. non amul xam nga si nga. tiit tiitaange amu ci. Mhm. parce que ñoom bi ñu dem élection yëpp ñoo leen gañe. waaw hmm. ah, élection yëpp mu ngi leen gañe. mais nee nañ Dakar moom mënu leen fa teg tànk. mais de Dakar ku xam ne on verra après parce que aussi on ne peut pas gagner partout loolu am nga fooy gagner am nga foofu gagner loolu tam c'est c'est normal on n'a jamais gagné Touba c'est normal c'est pas un fief. on hmm. n'a jamais gagné Thiès. c' est pas notre fief. ndox du gën a doy waar ci 2024 bi ñu dëgmal ak opposition bi ni mu taxawee nii. Mm-hmm. non xam nga problème avant parce que élection yii di ñëw locales yi ak législatives yi ñoom ñuy déterminer 2024. Mm. oui résultat yi génn foofu. mooy configurer deux mille deux mille vingt quatre. kon yéen ragalu leen ñàkk ko moo xam locales yi ak législatives yi. mais pourquoi ñu koy ñàkk. Hmm. parce que opposition li ñu fasoon moo di fi mu ne nii yéen euh, maanaam réew mi sax ñoo doyal ci nguurum président Macky waaw loolu lañ doon wax en 2019 c'était le même discours. nee nañ amatu leen doole. que que Macky Sall xamul lan dafa jógee et cetera ñu dem mu ngay leen 58 pour cent après bu ñu paree immédiatement ku ñu ñu jiñ ko fichier bi. waaw nee nañ aussi bi ñu nekkee opposition bi. ñun ñun bi nekkee opposition fichier bi lañ <laughs> fichier bi deful kenn dara c'est bonne guerre maanaam. waaw loolu la rek le fichier là deful kenn dara. <laughs> mais ñoom fichier bi sax. tax na la wax gis nga fichier bi xamul dafa wax mën nga mën naa la. yow daa ma ni ñoom xamante nañ seen. dama ko wax <laughs> jibi yow mën naa la jël.